donc jéey dañuy dem directement ñu assisté ouverture bi su ko defee rek euh, ñu mën a wëyal li nga xamante ne moom mooy euh, donc xam naa ni léegi gars yi démarré mais n'empêche jéey <laughs> donc dañuy continuer jël réaction ba tey euh, yaakaar naa participants yi ñu ngi fii donc ils ont été réceptifs ils ont été réceptifs et gëm nañ que ne aussi bu ñu fi jugee dinañ am une meilleure justice dinañ jubbanti yu jubul woon dinañ dinañ fexe ba yi fi amoon aussi un peu dootul amaat je pense que loolu mooy nekk njariñu dialogue bi incha allah rabbi tey euh, gis nañu ci li nga xamante ni moom mooy proposition yu bees yi euh, ñu bëri ñu ngi jàpp ni par rapport ak convention internationale yi est-ce que gars yi dinañ ci bàyyi xel mais yaakaar naa Sénégal dafa am réalité mm-hmm. te justice bi dafa laaj ñu contextualiser ko ak suñu réalité c'est ça aussi ñun suñu souveraineté aussi il va falloir que ñu jël ko ba mat sec même su fekkee monde bi nekkuñu fi il va falloir que ñu xool aussi par rapport ak euh, convention internationale yi ngay waxante si nii comment en tout cas fair bi nga xam ne ñoom aussi dinañ mën a xam suñu ay réalité euh, je pense que loolu yëpp aussi si dialogue bi c'est vrai que ni bëri na ci euh, beaucoup de sujets yoo xam ne abordé nañ ko yoo xam ne mën na heurté wu ci convention yooyu ngay wax et nous espérons vraiment trouver benn juste milieu boo xamante si nii ñun duñ si gaañu et que dinañ mën a respecter aussi euh, convention international yi et que ñun aussi su suñu ay euh, si suñu ay façon de vivre dinañ mën aussi suñu réalité ñu tenir ko en compte par rapport ak

ci ci perception bi askan bi war a am ci justice ci euh, ba ci ni ñuy solo ba ci lu ñuy wàlloo xam ni askan bi dañuy gën a gis boppam ba ci accessibilité justice askan bi mën a xam mën a s'approprier la justice xam ne moom moo ko moom donc yooyu yëpp waxtaanee nañ ko et je pense que je pense que ak ni ñu ko waxee anciens détenus yi ils avaient leur mot à par rapport à tout sax travaux yi ñu fi def aussi je pense ñëpp lañ déglu ku ne joxe contribution et euh, au final on pense que askan bi dina ci gis boppam incha allah. merci beaucoup